man danaay wax ne bis pénc bu yonent yi rammoo xaarifooni bi lay ramm yàlla nag mu na bu boobaa moom it dana ramm dana tibb ab tibb ci ñi war a dem safara yóbbaal jat ma ne bu boobaa nag man Ousseynou bàyyi leen ma ñi ci des ma def yàlla intervention bu ma defee intervention bu lànkee danaa ko dugg moom yàlla xenu ko ba ca kaw su ko roccee nag danaa ko duggoo duggaat busula ko su ko roccee danaa ko songaat lalawaale ko su ko roccee danaa ko duggaat faqat ko su ko roccee danaa ko duggaat laalo xaalu ko su ko roccee danaa ko duggaat ndengeñ su ko roccee danaa ko sido mu damm bu dammee nag di wuti ko comme jàmm mën a gaañ a daw leen duggaat